ay salaamaaleykum wa rahmatullah waa Medina Baye euh, imam Assane Thiam la Pastef Medina Baye maa ngi fegoo ak sama naataangoo chargé de la communication Pape Thiam ak adjoint coordonnateur Babacar Seck cellule Pastef Medina Baye numéro trois donc tey ñu ngi fi Medina Baye euh, ñëwuñ fi dara pour euh, set setal pour sensibiliser les personnes qui son à Medina Baye. tey nag euh, mu nekk journée nationale journée boo xamante nii vraiment symbolique la waaye tey ñu tànn ci Medina Baye ñuy waajal euh, burdu di waajal gàmmu donc ku ne gàmmu nag ne set ku ne gàmmu tamit ne environnement ku ne gàmmu tamit ne sensibiliser parce que tey ay gan ñooy ñëw di euh, jugee fu nekk di jugee ci àddina bi fu nekk ci ci réew yi fasantikoo ñu mën see jox rek exemple comme Nigeria wala Amérique wala Ghana wala Togo wala Lagos feneen ak feneen ak feneen wala Mali donc ñu gis ne tey bu ñu ñëw war nañoo am benn hygiène boo xam ne danañ ko indaale waaye tamit accompagner ko par environnement boo xamante ni vraiment tey ku dugg si dëkk bi di nga xam ne euh, vraiment set am na si dëkk bi parce que nag mënuñoo def dara sans set parce que set kat moo jiitu si lépp. moo jiitu tamit si bépp activité boo xamante ni nit war na koo def par rapport à des gens donc actuellement moo tax tey tey nag journée bi ñu ngi si accompagne ñu ngi si ànd ak euh, waa zone huit zone huit mooy nekk responsable euh, cellule wala responsable comité d'organisation mu mu ñu composé ko si ay quartier muy Saam di Coofak di Medina Baye waaye nag di Daaraxmati di lycée fépp ak Medina Mbaba donc ñooñu daal tey ñoom ñoo ngi nga xam ne ñoom ñoo organisé mbir bii nii ànd si tamit waa ak waa Sonaged ànd si ak police ànd si ak euh, la gendarmerie ànd si ak euh, la Croix-Rouge ànd si ak euh, toutes les autorités yi nga xam ne tey jii ñi ngi Kaolack di wuyoo Kaolack di seen lépp parce que ñu ngi fi gis léegi sax waa waa waa waa ASP yi ñoom tamit ñëw nañ léegi léegi nii pour accompagner si liggéey boobu noonu ak waa Zona 7 vraiment tey daal ñu ngi nii si Medina Baye wax dëgg fa yàlla liggéey bi nag mi ngi dem suba ba léegi depuis huit heures ñu ngi commencé ba actuellement nii ñu ngi xaar tamit le préfet et le gouverneur de la région de Kaolack ak les autorités yi nga xamante ni war nañoo teewee bis bi donc c'est ça actuellement nii.